ndax seen diggante ñoom ñaar ñëpp xam nañ ko ndax jëkk na tey te man mi xam sëriñ bi xam naa cofeet jëm am ci moom xam naa jàpp bi am ci moom loolu nag doon sëkk yóbbaale na lépp te keroog ñaanal na ko ñaan goo xam ne fala ak ñaan mën ndax nee na ko maa ngi la ñaan ci sëriñ Touba li nga xam ne mooy sa bëgg rek laa ñaan ndax daa am loo moom sama bopp am lu moom naa ko ci sama jëmm rek loo ci bëgg xamal ne da nga ko am maa ngi leen di Sëriñ Tuubaa ne lii sëñ bi yàlla la ko defal moo ko ci lam ñoom ëpp dig ko ginnaaw bu loolu jàllee nag ñaari seer rek lay indi fàttali ci waxi Sëriñ Tuubaa ndax jataay bu mel nii jataay diini la jataay fàttaliku la alxuraan da ko santaane waskur fi kitaabi Ismaayil waskur fi kitaabi Idris ak yooyu nga dégg yëpp suñu borom daa santaane ñuy fàttali ci jataayu mel nii wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabitu bihi fuaadaka wa jaaka fi haasihi alxaqu wa mawizatun wa zikra lil muminin Sëriñ Tuubaa ci njaarim mas am bis chef de canton yi daje ci njaarim yi limanel booba moo leen jiite mu ñëw ci sëriñ bi ne chef de canton yi de ak buur yi dañoo daje ci dëkk bi bëggoon laa siyaare si sëriñ bi ne leen nañ dem ba ngoon ñu dellu siwaat ba mu jógee bay dem sëriñ bi woowaat ko mu ne ko mbaa li ma leen wax jaaxalu leen moo ko dee mbàkk yokkoo loo santaane rek mu ne ko am na ci koo xam ne damaa ñaanoon sama bor ne ko buñ gisee waat ci àdduna ndax jamono liggéey bi la yëli ne ko mbàkki mbaakoon kooku moom bu del siwaatee du yàq jotaay bi sëñ bi ne ko amaana lee sax du ñëwaat bañ génnee rek yàlla def ndaw loola daal di wax ne man de du ma war a del siwaat sax ndax ci dugal da ngaa mën du ma mën a ñëwaat nga gis sëriñ Tuubaa lu mu bëgg ne ko suñ doon defare ba ca ngoon ga ñu agsi ñëw toog bi ñu agsee sëriñ bi ne leen yéen buur yi ñu ne mooy leen yéen buur yi ñu ne jël mooy leen yéen buur ñu ne jël mu ne wuyu leen ndax yàlla leen ko def ah. ndax suñ borom ba mu bindee doomu aadama wàcc ko ci kaw suuf wàcciwu fi ay malaayka yi jiite leen ndax doomu aadama bu gisee malaayka dee faatu wàcciwu fi ay jinne ñu jiite leen kon ay doomu aadama la fi wàcc yu jiite leen yii nag ak yàlla mi lay bind ak doomu aadama yi ni seen mbir demee dafa mel ne sër bi bi nga xam ne dañ koy dénk ak jur mu di ko sàmm waxtu woonee mu ñëw laaxan benn ne bii till ga lekk na ko bii sàcc nañ ko bii réer bu yàggee nu ñu defam moom ñu ne ko xanaa nangu ko ci loxoom mu ne yéen ak bindeef yi leen yàlla boole noonu na ngeen xam ne seen biir ne noonu la demee bu ngeen leen yërëmee te dimbale leen suñ borom dëgëral lim leen jox bu ngeen leen mu nag suñ borom nangu lim leen jox kon loolu képp ku yëngutu ci wàllu àdduna na nga ko bàyyi xel Sëriñ Tuubaa ko dinkee moo ko digle woon waxoon na it ne de moom rek laa gën a bëgg ci àdduna bëgg naa ko nag nu raw ni ab tubaab bëgg dërëm ne tubaab de lépp lu mu la wax lu ab dërëm laa bëgg lam la wax waxul lu am daan nga bëgguñ yàlla bi leen bind bëgguñ yonente bi tax ñu bind leen bëggante wuñ ci seen biir luñ la wax ne bëgg naa ko loolu ab gërëm rek loolu amut kon Serigne Touba foofu la nekkoon kon ñu góorlu ci baax a baax te xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne Serigne fàggulu leen wërsëg barke la leen fàggul daane wërsëg barke rek ma tàggale leen ko day yaar yoo xam ne bu dee wërsëg mën naa dem bàyyi la fi mën ngaa dem bàyyi ko fi mu ne barke nag doo am lu tege ne waaye saa soo xëyee loo soxla mu faju bala ngay génn àdduna mu def ñaari xaaj benn bi ànd ak yow ci si biir bàmmeel la ci tasaaroo ci biir njaboot mu ne wërsëg nag sëñ bi fàggu leen barke leen fàggu mu ne barke bi rek wërsëg bi nag mooy yi ngeen di gis ay tegandaay bi mu ne tegaay tegandaay nag mooy jëkk jeex ci ndab te kenn du ci suur li mu leen fàggu muy barke bi nag mooy li fi des kon nañ góorgóorlu bu baax ba ci xam li ñu Sëriñ Tuubaa fàggul te góorgóorlu ci def ci te def ci pastéef waxoon na ne yàlla suñ borom ba mu bindee wërsëg da koo xaaj juróom-ñeent fukki xaaj juróom-ñeent juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yëpp nag ëllëg ko tax a mu ne benn bi rek la wàcce ci kaw adduna juróom-ñeent fukki yëpp nag ëllëgu ko jox mu ne benn bi rek moo tax jullit bi di ko war moom muñ ak sant ndax li am ci dërëm baaku si lu toll na toq ba léegi yéefar bi du ko juróom-ñeent fukki juróom-ñeent mu ne boobu yi nag muy néew koy bari mu ne ndono nag loo xam ñëpp ñëpp ko bokk ka njëkk a juddu ba ka naw juddu mu ne ndono nag daa laaj sédd te sédd dafa laaj bu maanaam mu ne war a suñ borom dénk leen mbiri àdduna si dénk ko tubaab bi maanaam gi mu gis ñoom moo tax mu dénk leen yàlla suñ may ba dañuy wax xam-xam àdduna ba luñ ci xamul rek amul njëriñ waaye àllaaxi rek da leen ëmp ba luñ ci xam rek amul njëriñ loolu la suñ borom def ci ñoom kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di jox Cheikh Maodo Faye kàddu bi li nga xam ne moo jëm ci wàllu nguur gi nag sëriñ Bassirou Mbacké dana ko jot bi ndax moom mi sëriñ bi doxaloon diggam ak ñoom mu wax ne li mu sàkkoon ak ñoom def nañ ko dana leeral lépp bu jeexalee waaye ñu xam ne sant moom dafa war ndax alxadiisul qudsi yi dafa wax ne al abdu lam yashkur nii maa lam yashkur man ajraytu ni'mata ala yadihi nee na jàpp santuma li fii santu ki mu jaawale jaarale xéewal bi ci moom te suñu kilifa yu baax yi kat liñ daa baax baax képp ku leen mos a jëfal danañ ko sant ba ñëpp dégg ko kon loolu wërteef la boo xam ne euh, suñu borom mi nga xam ne moo sàkk lépp te dara lu ci ne rek mbindeef la ci moom moo bëgg doomu aadama sant ko kon asalaamaaleykum kon ñu ngi jaaxle foofu kaddu bi di jox Cheikh Mahamadou Fari ibnu Cheikh Mahamadou Bachir mi nga xam ne moom la sëriñ jox kaddu santaale yi. ak kaddu kaddu yi liggéey mu jëme ko ci bokki jullit yi jëme ko ci bokk tere bi jëme ko ci gan ñi nga xam ne ñoo fa teewal sëriñ bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala